kool kurus ndoxu zamzam mbaxane ak fowukaayu xale doon na lu ujaa ci faral di jënd ngir joxe sarice saa yu ñu ñibbisee ba pare fii ci marché leen nag bëri ay bërëb yoo xam ne jaaykat yi ci loolu lañuy yëngu demoon nañu nag seeti leen ngir rekk nemmeeku leen fekk nañ fa ay ujaac yu bari yoo xam ne dañoo ñëw rekk ngir jënd si di ko maye. ñi ma jëmme nag ak Khady fa bokk nañu ci ujaac yi fa ñëw ngir mottaliku sarité. Eh, dama ñëw ut bagage ah, ma doon wër nag bu dugg fi ñu naan ma fii dañuy jaay bagage u Makka ah, man Makka laa jóge fan yi di waaj a recevoir sumay gan. di wut nag ay bagages yoo xamante ne pour mottali li nga xamante ne mottalewu ma ko waaw ma ñëw si gudd dugg ci biti bi mais macha allah am na ay bagage waaw. Ah, prix moom seer na seer na de wax dëgg yàlla par rapport ak fi ma jóge moom prix xaw naa saf. lu jëm ci njëkk yi nag ku ci ne am gis-gis bu wute laata rek ñuy ñëwaat ci li nga xam ne moom la ñuy jëndee bagage yi ñi fa wut si. Euh, fii kay moom dafa cher wax dëgg yàlla dafa cher par rapport ak li ma jëndee fee waa fee moo gën a yomb prix du benn sax waaye c'est que booy jënd fee dafa am euh, lu ñu lay may euh, kilowatt yi ñu lay may si bagage yi moo tax doo mën a jënd lépp lépp ndax bu bëree rek bu ëppee lu ñu la may si kilowatt yi rek dañ koy daal di kii wàññi waaw moo tax da ngay préféré jënd fële tuuti boo ñëwee fii nga mottali. waa prix yomb na ndax ñun foofu yàlla la ñuy doxee fii nag CFA fee dox. te itam ku bëgg dara nga def dara gënal nañu nag parce que màkka loo ci def rek sa bopp nga ko defal tey bu doon milliard sax ñu def ko ci ndax ka dem ka fa ñu jëmoon jaral nañu lu ne ndax billet ba ñu fere moo ëpp li ñuy jënd fii. waa am naa li ma bëggoon moom mi ngi fi mi ngi fi ah, am na sajaada jënd naa fi sajaada ah, di waaj a jënd zam-zam. jënd naa fi kurus kurus bi maa ngi ko jëndee eh, douzaine bi 10 000 maa ngi ko jëndee 10 000. ma jënd abaya abaya yi maa ngi ko jëndee benn bu nekk 4000 euh, am bu ma jëndee 6000 ma jënd sajaada sajaada yi maa ngi ko jëndee 3500 euh, euh, ma jënd mbaxane mbaxane bi aussi maa ngi ko jëndee 6000 am na buy jar 25000. damay soog a jógee barki démb màkkatul mu karam waaw ma ñëwoon nag pour ma mottale li ma jëndoon fii. maa ngi gis li ma bëggoon de mais des na nag mais damay wër ni ba gis li ma gën a bëgg bagage sëricë rek yoo xam ne pour sëricë màkk rek mais ay kol ay jàllaabe ay robb ay kiyu xale foo kaa yu xale yëpp yoo xam ne day dañ ko soxla ci xale yi def jënd nañ ko ba pare ñu ñëw fii li nga xam ne nag sëricë bu munta ñàkk ñu joxe ko looloo tax ñu ñëw fii mottaliku ko am nañu li ñu jënd mais xam nga comme vol yi du ñu nangu bagage yu bëri 46 kilo lañ ñu may deux valises doo mën a jënd lépp il faut nga ñëw fii nga mottali li nga war a jënd. lu jëm ci jaaykat yi nag jàpp nañu yëf yi mu ngi dox ndax nit ñi ñu ngi ñëw donte nag jamono neexatul la. avant moo doon gën a dox en fait par rapport ak euh, mais tane nag peut avec euh, régime bu bees bi peut-être loolu tamit de joué jamono bi neexul aussi mais nit ñi ñu ngi ñëw. wax di yàlla ñu ngi sant yàlla waaw ñu ngi jaay ñu ngi sant wax dëgg ñu ngi ñëw waaw ñu ngi waaw ñu ngi ñëw waa ñu ngi ñëw dañuy jënd ay kurus. ñoom sax de di Zita ak Seydina Aline Fall la ñu xamle mooy lépp lu am màkk rek am na fa. waaw am na 2000 am na 2500 wax dëgg yàlla collé moom yomb na am na ay coton am na ay collé yoo xam ne moom mooy loolu wax dëgg yàlla moom service màkk boobu boo ñëwee moom li nga bëggee mën nga kaa am waat dina yomb xam nga li nga bëggee li nga ko am macha allah. gaa ñoo certifié bu ñëwee ñu ngi jàpp si prix bu a baax pour nga xam ne ñu ñëw xam nga xam nga màkk dafa métti quoi xam boo nee dem tamit a jënd service mu xaw a kii def ko xéwal ba nga xam ne kenn di nga mën a am li nga bëgg yëpp ba di nga satisfaire say gan bu ñëwee loolu ñu def prix mu abordable. jaada zam tàndarma ay jàllaaba góor ay kaala góor. en fait lépp loo xam ne daal mën nañ ko am màkk mën nañ ko am fii donc dañ koy préféré jënd fii mu gën a yomb bunyi sukan di ko cinyari jai kat kinaka. Njaki, ia mamai na, don tenaka ia mula dah kali tei, de feberi. Uh, ah, afet, pete fof mun na yombo, me bo hole transport bi deja, paske pun nga induko. Lol moy don problem. Donc nga jëndu ko fi ni nga xamné c'est déjà prêt. Yo da ngay ñëw do yor ben bagage. Da ngay ñëw rek euh sa sali ci fekk parena nga joxé ko fi ni. C'est beaucoup plus simple bo jëlé fofu non nga jënd ko. bi nga fay transport bi donc double lay doon c'est beaucoup plus compliqué alors même produit là, la amul différence. ñom nak delu ci nañu ci bagage yi nga xamné mom le client yi di faral di jënd. col yi lépp dañuy koy jënd kurus zamzam bi ak tandal surtout parce que loolu moy priorité. zam-zam ak euh, tàndarma chaque fois moom la ñuy njëkk a jënd parce que yooyu mën na manqué ba mu manqué bu ñëwaatee day day day gën a cher moo tax. Mm. ginnaaw bi ñu tabaskee ba pare aji ujaace yu bëri tàmbali nañu di ñibbisi bu nekkee ñenn ñi nag dinañu jëndee lépp màkk am ñeneen ñoo xam ne nag dañuy ñëw di mottaliku ci boutique yu nekkee file ci Dakar li ni mel tax ba jaaykat yi di si gis seeni popp ci jamono yi.